seeni naal sos yeneen ci barke yonent bi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la gërëm yow waaw di wax waa Italie na leen mhm. ak képp ku nekk ci biti na leen mhm. nekk fii ci Touba mhm. ak nekk ca Italie ak nekk feneen ñoo yam sunu boroom moom daggul ay frontière wal arda farashnaha fa ni'mal maahidun ak sa Euh, am na leneen tamit lu wax nu mu ko wax euh, ardullahi waasi'a fa iyyaaya fa'budun moom looloo ko ca intérêt suuf si ni muy yaatu yaatu na fa gaa yi nekk di jaamu wallaahi wallaahi waaye daj yi frontière ak wuti wii saa moom intéressé wu mhm. kon ñu ngi leen di wax ne leen mhm. fu ñu mën a nekk rek na doon Touba ci ñoom fu mën a nekk la ñuy jëfee Touba nañ ko def fu mën a nekk waaw ñu ngi doon laaj yi benn laaj boo xam ne si ñu bari dañ ciy réera bi te toujours dañ koy yittewoo mhm. muy sëñ ma ci ban date la njëkk a toog ci xilaaf ak sëñ Massamba sëñ ma Mahamadan mi ngi toog ci xilaaf ak sëñ Massamba 1957. 1957 waaw moom la fi sëñ Moodu May jógee 58. moom la fi sëñ Moodu May jógee 58. Mhm. waaw boobu la njëkk a toog ci bopp njabootu sëriñ Massamba. waaye dëkk bii nag moom mi ngi ko sànc 1941 42. Mhm. moo jiitu loolu. waaw kon def na fi ay at. Mhm. doog di nekk ma Massamba. kon 41 42 boobu bu ma juumul kon fekk na fi waajuram bu tedd ba ma Massamba. dëkk bi bi mu koy sos fekk na fi sëñ Massa. Ah, waaw waaw waaw mhm. bi mu koy sos tamit fanweeri at la maanaam booba li ma am ci at moo ëpp moom li ma amoon ci at. Hmm. boo koy xool da gis ne kon. Mhm. pas-pas. Mhm. ak euh, xam ne képp koo xamee ne samp na sunu borom la samp. te ku sunu boroom samp kenn mënu laa daaneel. loolu la xamoon. Mm-hmm. moo tax mu doyloo sunu boroom mm-hmm. doyloo yàlla ñëw sanc fii. Mm-hmm. te bu ngeen xamee ne bu ngeen xamee sëñ Mahmadan ak fi mu cosaanoo xam ne dub Saalum Saalum. Saalum nag mu ne ci Mbàkke ndax dañ fee yàgg. waaye sëñ Mahmadan moom dub Saalum Saalum. waa kër ndeyam kokki la. kokki. waa kër baayam. ñëpp xam nañ ne Mbàkke moom bawal la lenn ca waa kër lenn ca baayam di kokki dajawaat ca moom kon amul lenn saalum est que waaye dafa xamoon ne mooy li ma wax léegi ne frontière ak jegeeg sori ku xam yàlla wurulaa ñor waaw loolu amul solo dëgg la loolu moo taxoon mu jóge mu jóge fa mu fa mu bokk ñëw sanc foo xamee ne kenn xamu ko fa mm-hmm. te day la mu bëggoon mm-hmm. lépp fii la ko amee. est-ce que que amee ko fa mu bokk. est-ce que est que kon sori amul solo. est waaw baax na kon nga ñaanal mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan. Uh-huh. ci nekk bitim réew. Uh, yan kàddu nga leen di uh, soññi. li ma leen di soññi rek mooy maa ngi leen di ñaanal ñu am xéewal yu bari. est que te mucc. est que te yàlla dolli leen di leen kàttanal. est-ce que te ñu ñu yàlla defal leen tamit seeni taalibe yàlla di leen ko sàmmal fu ñu mën a toll. est ñi ngi sant ñëpp. waaw di gërëm ñëpp. di wax ñëpp jërëjëf. ndax sëñ Mahmadan daan wax ne. Mhm. Touba de ku ma fi fekk moom damay xam ne ñëpp fi daje. Mhm. waaye Touba Mbella moom ku ma fekk ma xam ne yaa maa la fi indi. kon ñu ngi sant ku ñëw ñu ngi sant képp ku ñëw Touba ak sa la gërëm. baax na di ñaan yàlla defal leen jàmm. baax na asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw baax na asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki téléspectateurs yi ñuy siiwar te nekk bitim réew ak fépp foo xam ne si télévision bi àgg na fa tey ñu ngi ci bis bu màgg boo xam ne dañ koy amal jëmm ju tedd joo xam ne moom moo ko daan def ci jëmmi boppam mu di sëriñ Mahmoudan euh, moom sëriñ Massamba Mbacké mi nga xam ne wuutu na fi Cheikh Massamba ci atum 1957 nekkee woon fi nekkin wu rafet nag tey nag kii ngi ñu jàkkaar lool muy ëpp sëtam yaakaar naa ne bu ngeen si image bi ñu bari ràññee nañ ko ci jataa yi nga xam ne dañ koy amalal ma Massamba sëñ bi gannaaw ba ñu la siyaaree bokk yëpp di la nuyu ak jullit yëpp ak na murit yi sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu bëggoon ay kàddu yoo ñu baaxee ci dunduk Serigne Mahmadan ak dëkk bii nga xamee ne tey fi lañ koy màggalale loo ñu ci mën a baaxee rek nga baaxee ko téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog noonu fii. bismillahi min seytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp te di leen siyaar te di leen baalu àq te di leen baalu tey ñaan suñu tabaraka wa taala mu boole nu defal tawfeexam te jàppandal nu banu may nu kattan bu nu ko jaamoo hmm. te jaamu yëpp ñu teg ko ci sunna ak ci yoon yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bàyyee muy te mooy topp ay ndigalam moom sëriñ bu mag bi hmm. di bég bu baax hmm. ci bis bu tedd bi nga xam ne ci la ñu nekk tey di màggalu Tuubaa Mbeela di bis boo xam ne sëriñ Mahmoudan radiyallaahu taala anhu moo ko sosoon di ci fàttaliku sëriñ bi ci fàttaliku sëriñ Masamba di ci fàttaliku sëriñ bu mag bi di ci fàttaliku seeni ndigal itam laaj bi nga laaj xam naa laaj bi yaatu la waaye ñu tënk ci rek mooy sëriñ Mahmoudan ak ak ak ak ci taarixam ak dëkkam bii di Touba Mbella nga wax loolu lu yaatu lay doon waaye ci tënk rek mooy sëriñ Mahmoudan foog naa ne ñu bari xam nañu ko mm-hmm. moom bu ma waxul ñëpp itam ñu bari xam nañ ko ñu bari xam nañ ko ci yoon yi mm-hmm. muy koo xam ne jaamu yàlla la koo xam ne yàlla tawfeexale ni ko daana ko jaamu mm-hmm. diirub dundam te jaamu ko mu teg ko ci sunna si yonente bi boo xam ne lépp luy màndargaal ak taalibe ci yoon yi boo ko ca xoolee fekk loolu mu doon ko ko fees ci wet gu ne euh, yàlla dogal muy doomi sëriñ Masamba yàlla dogal it juróom wu jigéen it hmm. di ku ñu xam hmm. di soxna Aminta Jobbe ñu hmm. soxna Aminta Jobbe Jóob ñu gën koo miin ci soxna Jobbe soxna Aminata Jóob la tudd waaye nu gën koo miine ci soxna Jóob bi ak ganek jamonoom it ñëw jamono ci benn fan ci weeru janvier 1912 loolu moom moo ko daa waxal boppam lu bari da ci daa tooñe sax di wax ne douze moom ku feeñ ku fe ku ñëw ca ñaareelu fan ba rek maa maa la mag ndax ci bis bu njëkk ba laa ñëw est-ce mu feeña Tuuba hmm. ci taw feexam ci mm-hmm. dëkku sëriñ bu mag boobu mm-hmm. ndax jamono boobu muy feeñ mm-hmm. moo tolloog sëriñ bu mag bi di sañ ci njëriñ nga xam ne waa këram sax demaguñ fa ba kenn di ko fa fekk boobu sëriñ Masamba mi ngi toogoon waa këram yi foofa la ñu ne mu feeñe foofa ba mu feeñee ko sëriñ bi xamal ko ne ko gan am na ci kër ga eh, sëriñ bi ni ko baaxoo defee mu tànn aw turam ji doo koy bind ca Muhammadul Mahmoud hmm. bokk ci turi yonente bi al Mahmoud ci turi hmm. yonente bi alayhi wasalaam la bokk hmm. sëriñ bi tànnal ko tur woowu waajuram wu tedd ba di sëriñ Masamba yi bi tànnee tur bi moo ko tuddal boppam yàlla te it ndiir soosu mu feeñ eh, nekk fi Tuuba as di as sëriñ bi nag samp sancum njëriñ ba tàmmulee dëgër tàmmulee fabu di ko fekk na mhm. sëriñ Masamba dem yóbbaale waajuram soxna Jobe mhm. ñu soxna Jobe demit mhm. mu mu ak sëriñ Mahamadan yóbbaale nga xam ne ndiir su yàgg soxna Jobe def na ko ci biir te sëñ Tuubaa gi nekk ak tax loola taw jural na ko taw feexi mu teel a noota sëriñ bi lool ndax ci ñu baal ma ci kàddu waaye ci perantalam mhm. la la miin sëriñ bi ba gimmi ci kanamam mhm. ba li ñuy wax fer cim soow sëriñ bee ko ko defal mhm. mm, ba mu ko defee it génnul këram eh, lépp luy gone di def ci njëlbeenam ma naa ne ci kër gu mag la ko defee est-ce que loolu ko ak teel a noote bu mag bi lool teel koo jege lool ci ci ci ci gone goo xam ne kenn du ko wax toogal ak dafa yëpp nga xam noote na néeg sëriñ bi ba tey ñoo ñooy sëriñ ba tey nga xam ne boobu sax. Hmm. dem na ba gimmi ca hmm. boobu xamul sëriñ bu mag bi la gën a xam ci sëriñ Masamba. Hmm. ba tax jàppoon na ne sax. sëriñ bu mag bi mooy bàyyam. loolu te la mooy bàyyam waaye moom jàppoon na ne mooy bàyyam dëgg nag. est-ce que. léeg-léeg ñoom maasee sax buñ ko ci daa tooñ naan ko yow sëriñ Masamba sa baay eh, booba day mel ne mënu koo nangu. mujj sëriñ bi ne bu leen ko ko waxati may bàyyam. ndeysaan may bàyyam daana wax ne. ku teel a xam sëriñ bi mhm. daana wax na daana daana nekk ci nekk sëriñ bi mhm. mm, ci liggéey bi ne sëriñ bi ci sëriñ bi ne ci moom mm, ba ba nelaw dikkal ko fa mhm. nee na ma yeewu yeewoo ci kaw lalu sëriñ bi mu wóor ma ne moom moo ma ca teg waaye ba may tëdd tëdd ma ci loolu la tawfeex xam jeneen tawfeex it mu am ko eh, ba fa nekkee ba war a eh, tàmbaleen njàng yi sëriñ bi moo moo ko ko tàmbaleen moo jël aliwo mhm. bind ca baasin mi war ji ñu xam ne kuy dal baax mhm. moom ngay tàmmale mhm. sakko ko yàlla dogal na aliwo jooja sax mu ko bindale woon ba bu yàggul mi ngi doomam yu baax yi wala ci sëñ Mbàkke Mahmadan taawam bu baax bi keroog ba muy dem daara moom la ko sëñ Mahmadan dalal aliwo ji ba damay ci waaye ak ba foog na mi ngi ci kër gi foog na ak sa mi ngi ci njaboot bi ba tey koy barke ko dalalee nag jox ndigal sëriñ Masamba mu yut ko najaayam bu ñuy wax Samba Xayib Diop moo soxna Diop bi mii ndayam ñoo bokk lépp Samba Xayib yor ko ci ngaagu géej Tuuba tey foofa la ko doon jàngale yàlla defal ko tawfeex yàggut ngir su gàtt rek mu am ca tawfeex yi wattu téere boobu di alquran mokkal ko li mu ca mokkal bi waaye mu bind ko mbind moo xam ne mu dem dayoo la ci su gàtt mu ko defee it samba yëpp delloo si waat ko ci sëriñ ma samba boobu ko indee mu sëriñ ma samba jox ko kaamilu sëriñ sëriñ ma samba bir na lool mbégte mu rëy moo xam ne wax dëgg kawe na ca moom hmm. dal di jóg ànd ak ñoom ànd ak hmm. sàmba yi sëñ Maamoudan hmm. yóbbu leen ba ci ku baax ki nuyoo waat leen xamal ko ne Mahamadan wattu na sàmba yi bi ko doon jàngal mooy na jaay mi ngi nii ñoo ànd ñu nuyoo sëñ ma sàmba jël kaamilu sëriñ Mahamadan bi jox ko sëriñ bi war a jëlaat eh, sëñ Mahamadan bu ko daan nettali boppam da nga yëg na loolu lu ko ñor la nee na ni mu ko joxee sëriñ bi sëriñ bi ubbi kaamil bi mbind mu mhm. mu xeetu meeg taar bi mhm. mu mel ne bu sëriñ bi doon yéemu nga ne keroog yéem la ko mhm. eh, ba bi mu xoolee kaamil bi daf ne Masamba Ngóor si moo bind lii ndeysaan sëñ Mahmoudan noonu la ko daa waxee est-ce que la daa jëfandikoo moo tax ma di ko jëfandikoo Masamba Ngóor si moo bind lii sëñ Masamba ne ko ah, ah mu ne ko ah, waaw Massamba kii kan na ngeen ko suturaal ndax lii lu teel la ci moom. Mhm, mhm. waaw daal fay wax Samba Ayib ma ko doon jàngal ne ko ah, Samba Ayib kat yow ku baax nga ci jarbaatam. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que. baax nga ci jarbaatam. Mhm, daal di mel ne ko fa nattu sax. moom sëñ ba mu bee ndax ba mu bee kañ ba daa yem ci boppu laxaraaf. alif laam miim saat. ne ko taril ma dégg. a Mamadou ne te booba alxuraan moom. fépp Fatiha yem ci ne ma jàpp ne damay tari saa rek ma ma tàmm bi. est-ce que ma tàmm ne léegi si dexu moom fii saa soxlaante rek. a jeex. a mu ne ma taxawal. Mhm. ma ma taxawal. mu ubbiwaat yem ci bopp ma tari mhm. moom itam mu woyaat jàpp ne noonu la ba mu agsi ca fa laa tax la bu naf suñ de ayaba ca ne mu ne baax mhm. dal ni ko Mahmadan day mm, na nga yëg ne sant naa la bu baax mm-hmm. gërëm naa la itam sëñ Mahmadan bi muy bi muy tudd baatu gërëm bi muy am bi muy dégg baatu gërëm naa la ci sëñ Tuuba mm-hmm. booba fukki atam matagul mm-hmm. loolu taw yax ju rëy la ci moom baatu gërëm naa la boobu la jëfandikoo ne ko ndax nii nga def rek laa bëgg ku ko def naa maa ngi xam ne nii nga def daal képp ku ko def ku mën a doon na yëg na maa ko jur Mm-hmm. képp koo xam ne defu ko nag mm-hmm. mën a doon mm-hmm. juróoli ko da koy tudd rek waaye siqu nag moom dara booba eh, am na ñu taxoon muy wax waaw waaye mi ngoog waaye jotaay bi mayewul loolu dëgg la dëgg la eh, baat boobu sax bari na ba mu ko waxee gannaaw dañ koy wax ci ñoo ñooñu taxoon muy wax am na ci ñoo xam ne ca lañ laxase eh, gàddaay jëm jàngi ba loolu ñu yàlla war sëgg leen ñoom itam ñu indi kayit bi bi nga xamee ne jox na kayit bi sëriñ bi sëriñ bi gannaaw sant yooyu xamal na koy keroog ne ko Mahmadan na nga yëg ne bis naka tey hmm. sedd naa la cër bu rëy hmm. Hmm, boo xam ne faaw da nga ci jot askay moo tax ci ay jamono sëñ Mahmadan da daa wax ne dañuy wax campagne bu ma ko kenn defal campagne mooy ah xanaa xamoo sëñ bi sëñ Mahmadan da daa wax ne bu ma ko kenn defal ndax man sëriñ bi noonu na ma koy seddu ngay doon mhm. eh, te sëñ Tuubaa comme na da nga rek foofu nga mhm. waaye yaakaar naa ñun ñëpp yëg na seddu na est-ce que est eh, ni wala mhm. mu mu mu mu dénk ko mu mu farlu ci sàkku xam-xam ba tey mu booy mu mu jox ko ndigal boolewaat ko sëriñ Massamba ngir mu toppatoo ko jox ko ndigal ne ko ne ko yor sëñ Mbàkke Buso est-ce daal di ko jàngal. Hmm. fas ndiir. Hmm. ba ca mu bàyyeekoo ak doomam ju ñuy wax Serigne Assane Bousso. foofu hmm. fa jëlee mu jàngee fa xam-xam bu bari. Eh, te xam-xam ba ànd ak. ak wattu ak mu dégg. daanaka ñu dénk lu bari ne bu ngeen di jàng xam-xam na ngeen di fexe ba lu ngeen jàng ngeen di ko mokkal. daanaka man ba may jàng xam-xam moo mas a jàng mokkal naa moo xam lu ñu way la moo xam lu ñu wesal. loolu da nga yaakaar naa ne mooy dëgg xam-xam. parce que. jógee ci Serigne Assane Bousso yi. toog ndax lu xam-xam moom du doy du doy sëñ Masamba ñaaxaat ko mu daal di eh, mel nañ ku laxas def na mag ña daa def rek daal di wéy njaamu ci ñuy wax sëriñ Mor Sey sëriñ Mor Sey ci dëkk bu ñuy wax kër Mor Abdoulaye Sey ci njàmbur njàmbur sëriñ Mor Sey sëriñ bu mag bee ko tudde woon nibraasu njàm lamp njàmbur la ko sëriñ bu mag tudde woon dafa yëpp doon bërëb boo xam ne bërëb bu yàgg ci daara la ndax Mour mu mag ma nga xam ne moo sañcoon dëkk ba mhm. taalub jàng bu rëy la yoroon mhm. ca daaraam jooju wax nañu ne mhm. mag ña fa jaar bokku na ca Serigne Mor Anta Sali kon daara jo yàggoon na waaye ñuy wax sëñ Mor Seyna moom la Serigne moom bi joxaatoon ndigal mu sañcaat ko yeesal ko moo fa nekkoon moom la fa Serigne fekk ko dajee na ak sëñ Modou Faty Khary ci jamono ci mu jëm sëñ Modou Faty Khary fekk na ko fa waaye ba muy dem fa la ko bàyyi li ma wax mooy dajee nañ fa kon booba ñu bari rek doon nañ fa sàkku ju xam-xam foofa it mel na ne jëlee na fa lu bari ci loo xam ne waroon na koo mottalikoo ci wàllu xam-xam bërëb buñ ko bàyyi woon xel la yàlla dogal na bërëb ba jaar naa fa nekk naa fa ñaareel yoo xam ne doon naa fa mottali samay am yi ma fa doon mottali man itam mhm. waaye roote naa fa lu bari ti yoo xam ne ay jeex itam mhm. yoo xam ne ba mu fiy nekk doon tële ci daara la newoon it mhm. des na fa te ñoom ña fa newoon am nañ ñu nekkul la yooyu yëpp weesoo nag ba nga xam ne dellusi na adduna moom noppalu du am waxtu wu neen li nga war a def tolluwaay bu neen loo weesu rek leneen taxaw ci sa kanam. Mhm. sëriñ Massamba daal du daal di bu koy bàyyi mu toog. Mhm. téye na ko ci moom as ndéer. Mhm. soo xam ne taxoo ak moom xay na di mottali moom mu ko tërbiya bokk moo ko mënee waxee noonu. ba yenn melokaan yi bëgg ci moom. mu dolli ko ca. ndax foofu may wax ci kër Mourad Seye. sëñ Abdou du ñuy wax sëriñ Abdou Seye hmm. di doomi sëñ Mor Seye moom ngi wax jamono boobu sëriñ Mahmoud a nekkee hmm. ñëw hmm. euh, ba sëriñ Massamba àgg ci laaj ana Mahmadan mu ne ko ma nga ko ah, sëñ Massamba ne ko nu mu def sëñ euh, sëñ Abdou Seye tooñ ko ne ko moo la gën de moo la gën de Eh, ah sëñ bi sëñ Samba ma mel ne mu ne ko dama ne ana maax mu ne ko ma nga mu ne ko nu mu def mu ne ko ah moo la gën de. loolu it xaw a def aal sëñ Samba. mu ne ko am sañoon boo amee doom dégg ca loola ndax la muy tegtale mooy sa doom baax na. sa doom baax na est-ce que. sëñ Samba ne ko jox ko fa yu bari ay mbir rek ay mbéj suukari peñ ak ay mbajji leen ak yu ne hmm. mu jox ko. Hmm, hmm, ne ko kàddu gi nga ma wax say daf maa neex lool. ndax. sëriñ bi daf ma masa xool ba yàgg mu ne ma Masamba ma ne ko Mbàkke mu ne ma hakasa ah, yaa nga ci yoon wa mhm. sëriñ bi nag comme ne yaa nga ci yoon wa rek yaa nga ci est-ce que bu ma amee doom nga ne ma moo la gën mhm. loolu day dalal sama xel est-ce que dalal sama xel est-ce que kon mel ne tel naa jekk loolu itam mhm. moom la sëriñ Masamba mottali ci ngir si mu nekk ak moom est-ce que daal koy digal nag ci mu tàmbalee def dara yëngutu mën ta ñàkk boobu li gën a not ci yëngutu mooy bay bay waaw daal koy yóbbu Daaru Karim mhm. Daaru Karim mhm. dëkkam boobu ñu xam mhm. sëñ Massamba yóbbu na fa sëriñ Mahmoudan mu nawet fa am at te déwén sa mu toxal ko garal ko sankal ko daal boppam dañuy wax nja te boor yi pegg Touba ne waaw boole ko ay mag bokk na ca sëñ Ibra gi mhm. kon ci mag yi boppam mhm. mu boole ko sëñ ma sëñ ak ñeneen sax mhm. ñu nekk